ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ànd beeg Aladji TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam ginnaaw belee seg Sadio Mané gi nga xam ne neexul kenn gonek sénégalais gi nga xam ne fi mu toll nii daanaka ma nga ca Bayern na fi mu toll nii mënatu la dem kon li fi mooy jiima tànn goo xam ne Aliou Cissé war na koo def ci lii nga xam ne mooy waxtu yi di ñëw tànn boobee nag ñu bari ña nga cay yebbi ay kàddu di wax fu ne la kàddu yu di wax ñii ña nga naan Pape Ousmane Sakho def na session boo xam ne am solo la ñii ngi ci li nga xam ni mooy nekk Habib Diallo mi nga xam ne daanaka moom it war nañ koo tabb ci li nga xam ne mooy équipe nationale Sénégal ñeneen ñi tamit di yebbi ay kàddu di wax Mbaye Diagne mi nga xam ne ah, daanaka équipe nationale ah, xam na ko bu baax a baax te it miin na ruq-ruqaan yeeg yi nga xam ne ah, moom la équipe nationale di doxee loolee tamit daanaka dañ ciy samp ab laaj yéen ñi nga xam ne yéen a topp ci TikTok bi ak li nga xam ni mooy YouTube bi ak gox yu fasante ko yi seen xalaat ci commentaire yi ndax loole ban jëmm ngeen jàpp ni fii nga xam ne fii la Sénégal toll ak fii nga xam ne fii la équipe nationale Sénégal toll ngeen doon joxe li nga xam ni ah, moo nekk poste yi kenn ngeen di tànn ci li nga xam ni mooy palaasu càmmoñ ba ah, ca la nga xam ni mooy équipe nationale Sénégal jàpp naa ni ah, ñii nga xam ni ñoom lañ leen limal kenn ku ci ne jàmbaari fàkk tëdd na tayit mën ngaa gañe am match yow kese waaye nag kii nga xam ne moo nekk Pape Ousmane Sakho moom nekk na footballkat boo xam ni xale bu ndaw la jàpp naa ne képp ku ko yóbbu coupe du monde da nga ni yéex naa koo tabb waaye nag ñeneen ñi des ci ñoom di ki nga xam ne mooy Mbaye Diagne ak ki nga xam ni moo nekk Habib Diallo di doomu Thiès ñoom ñëpp kenn ne am na ah, benn taxawaay boo xam ne daa nga ko am ci équipe nationale bu Sénégal ah, Pape Ousmane Sakho numéro 10 ah, mi ngi noonu ñoom it bu ñu jàngatee ci moom ak yi nga xam ni def nañ ko ci match yi nga xam ne mi ngi koy yóbbi gone gii nga xam ne mooy gone sénégalais gi Pape Ousmane Sakho ki nga xam ni mooy Sadio Mané ndax ñoom ñaar daanaka ñoo yem ay déplacement yem ak li nga xam ni ñoo ko yem kadar ji ñoo ko yem tayit gàttaay bi ak loolee lépp nga xam ne ndaxañ nañ ko ak caay-caay football moom mii di gone gi am na commentaire yi